leçon numéro trente-neuf masalikul jinaan wajtamahat dajaloo woon nañu yabun fukk ak ñaar mina sahbi ca sahaba ya ala tafdilihi ci gënal gi ñu jàpp ne moo gën omilata daa ko jëfe ala kasirin di jàng lu bare bari ci alquran ñu dajaloo di ko jàng di ko gaawal di ko baral di ko jàng ndax fukki saxaaba ak ñaar booloo woon nañu di ko jànge noona ndax jàpp ne baral ga gaawantu ga moo ñoom ñu dajaloo di ko jànge noona wa baaduhum lenn ca ñoom alaaloo seenu lay ca diibal ga ñuy diibal ak jàng alquran ak di ko settantal ñoom dañoo jàpp ne bil kaw ni ci diibal ga nekk gi mu nekk asxala lisaani di soxla làmmiñ wa maanaam jullit bi buy jàng alquran di ko diibal di settantal làmmiñ wa day yéeg a ko wàcc bokku tekki koy jàng cim xelam muy rabat di dem wala xay ni gët ya day xool araf ya ak yax ya yooya tamit dañuy tàng ca yiw wa kon làmmiñ waa ngay tàng ca yiw wa te jàng ak alquran nga ndax ma nga yéeg ak a wàcc wala ay nay ni yaari gët ya muy bët yay xool alquran ja moom it day tàng ci yiw wa wa xalbihi ak xolab ka koy jàng di ko takk di ko jàpp ma ngay tànk ca yiw wa wa yaddihi ak loxoy jullit bi jàng alquran jàpp kaamil bi mu di ko jàng day tànk ca yiwu jàng ga wal hijri ak poojam yam ko teg di jàng kaamil ba day tànk ca yiw wa maxata darub tadda buril mahani ànd ak muy settantal maanaaya fadri xamal ña nga xam ne ñoo lay ne diibal gaa gën loole lañu jàpp ne mooy seenu lay waaye sëriñ Tuubaa na fa in takkun bu dee da ngaa nekk aj ma koo xam ne yàlla dajale na lil xal bi ci ab xolam an saxari xaybin mu mën a jàng alquran te du ko xool ci fat doog amam mën na koo jàng te ko xool maxatada buril maxna boole ca mu mën a settantal manaya ya du ko xool ak yaxi mbind ya maxan mboole seem yàlla may na jaam bi loolu minal xiraati boole ca may ko mu man koo jàng bi mu ci téere ba man koo xool maxa nasarin ànd ak mu di ko xool ca téere ba mën na lépp kookee fa innaha naka jàng ga te du ko xool nag tafooxuxaa moo gën a kowe kama saxar ci na mu gën a siiwe nga xam ne mën na ñaar yépp jàng ko te di ko xool day daal di gën a kowe ca moom ndax mën na koy naafila guddi te ko xool bub kaamil amatut mbaa kaamil ba léeg-léeg accident am ca mu lakk mbaa ndox yàq ko dina ko mën a bindaat kon kooku di ko jàng di settantal maanaaya ak yàqab mbind ma te ko xool day daal di gën a kowe yépp a baax na ndax fa addamu nazari ñàkk xool ku la yow min ci benn bis bu nekk fii mushafin ci ab kaamil kuriha si bees na ko indal xaw mi fagaayu baax ya is ngir nasratun xool ab xool waahidatun bu di benn fii mushafi ci ab kaamil tuhaddu limees na ko xurbatan mu di ak jege yàlla képp ku ne ab kaamil jàkk xool ko rek loolee nga def ak jege yàlla la xool ga ngay xool ab kaamil yow jullit bi xool googee rek mën nga ca am ak jege sunu boroom bi xawli salafi ca waxi dawal ba muy ña toppoon yonent bi ñoo wax wax jooju mu jóge ca yonent ba kon bu dee laab nga ubbi kamil ba xool ko mbaa ngay xool jëmmi kaamil ba danga cay am yool waxtala foo wuute nañu ñoom saaba ya al ndax afdalu moo gën tartiilu settantal ga moo gën a baax aw ak suhoo mbaa safaan ba moo gën a baax maanaam jàng ko njàng mu bar kullun kenn ku nekk ci ñoom nag loo ñeel na ko maanaam am na dalilu ay tegtal yu wóor ca la wax ndax yàlla wax na ñaar yépp ci alquran dee leen ko jàng lu bari sunu borom wax na ko ci alquran dee leen ko jàng di ko diibal di ko settantal sunu borom wax na ko ci alquran kon fu ci aw rek fa nga aw sunu borom a ko wax ndax sunu borom moo wax ne warattilil qur'ana tartilan dee leen jàng alquran te di ko settantal ak settantal mu ne wax jooju jalaa feeñ na dalila tartilin di aw lay ca ñi nga xam ne ñoo tegtaloo settantal ga mu ne lay wu la liman ñeel ña nga xam ne xat fadala jàpp nañ ne settantal ga moo gën wal amru digle nga xam ne sunu borom digle na ko bi sikri ci alquran sunu borom wax ca ne waskuro sikroho kasiran de leen jàng alquran lu bari lool mu ne baat boobu tamit laaya ab aaya bu nekk ci alquran dëppook wal amru digal ga sunu borom digle bi sikri ci es di jàng alquran alkasiri lu bari kon ab aaya ngooga tamit dinu joxoñ di leen jàng lu bari kon ña lay ne baral ko jàng ca lu bari moo gën loolaay seenu lay mu ne aaya boobu dalilu aksi yi mooy teg tegtalab ñay jëf safaan ba maanaam ña koy baral loola lañu def aw lay ixtafi na nga xeeñcu riwaaya nettali ya kon jàng ca lu bari baax na baral ko njeem mën nga ko jàng ca lu néew te settantal ko diibal ko yépp a baax lakin waaye imaadul lamri wéeruwaayu mbir ma nag wal xasdu ak jubluwaay ba ajal ca na mu gën a màgge huma ca yaar yooyee nag taddaburun mooy diibal ga tafahumu ak dégg ga ajal waaw waaw diibal ko te dégg ko la ca yàlla wax nga jëfe ko daal moo gën a ko we lépp nag fatafaxoo dëppoo nañu muy waram xam-xam ye turan mboole seen àlla kaw niha ci nekk gi mu nekk maanaam diigal ga ak dégg ga diibal ga ak dégg ga nekk gi mu nekk sunnata xayril wara di doxal yi nu yonente bi alayhi salaatu wasalaam laa bul fàtte yaar yooyu ca na ngay jànge alquran jàppal ne tamit wa afdalu naasi ki gën ci nit ñi allazi mooy ka nga xam ne taxallama qur'ana xamlu na alquran ba man ko qur'ana rabbi alqurani sunu borom jooju ki gën ci nit ñi mooy ka ko jàng ba xam ko waxalama mu xamal ko xayran ñeneen kooku moo gën ci nit ñi ki jàng alxuraan ba man ko te di ko jàngal ñeneen yonent bi nee na kooku moo gën ci nit ñi waaye suna alxuraana ak jàng alxuraan ba wattu ko ci nun jullit mi ma bokk na ca la nga xam ne juxilaa defes na ko fardan muy farata waaye farda kifayatin farataay bu ko ñenn ña fardul kifaaya la bu ko ñenn ña mane ne yóbbaale ñenn ña kër gu ne na am ñenn ñu fa jàng alquran allah ma xulli laa allah ma nuqi ko toxale kër gu nekk daal na am ñeen nat ñu fa jàng alquran dëkk bu ne na am ñu bari ñu fa jàng alquran su ko defee yóbbaale nañu ña ca waaye ñàkk gaa am ci kër gu ne ci dëkk bu ne nag bàkkaar la ca jullit ya a dëkk faw es di jàng alquran ngir alquran bañ a